problème de toute mhm. façon hôtel bi rëy boo xam ne ku nekk mën nga nekk sa part te doo déranger kenn avant tout ça aussi on est des humains des adultes et des gens réfléchis je crois que Cameroun ak Sénégal de football moo leen di tàqale et les relations de ce pays de ñaari dëkk yi am moo gën a am importance euh, football bi Coupe d'Afrique la benn mois la l'Afrique et le Cameroun et le Sénégal sont appelés suba ñu liggéey si yeneen fànn parce que quand on regarde tey jii àdduna ni mu dëréwaar au niveau sécurité au niveau social au niveau tout il faut que ñu waxtaan seen ñoom je crois que nous africains ñoo bokk ndey bokk bàyyi lu bokk hôtel nag moom mooy tax tey jii la preuve moom mën naa leen léegi-léegi nii mm. maat Robert nu yonte nanu maat Jory nu yonte nanu sa say tey jii ñoo nekk tey jii di gunge xale yi suba tamit ñoom ñooy tamit di gunge waat seen ay rak te je crois que c'est ça qui est important et que mën nañ sax du dëkk fii bañ am ay barrières te nekk ñun ñëpp et je crois que c'est ça important et que je li gën am importance daal mooy si biir terrain bi bu mu am animosité bu mu am dara que le meilleur gagne et que yëpp euh, am nañ seen ay joueurs et que si bi ku nekk wane li nga mënee li nga li nga bac j'espère que le Sénégal euh, comme tey jii ñoo nekk ci kanam daan wane tamit sunu xaraange daan wane sunu mën-mën et que wane africain yëpp tamit ñoo fa nekk ba léegi. et là jour J moins trois comment ça se passe la préparation avant le match devant la Gambie est-ce que est-ce que le moral le moral est-il bon. Euh, duma wax affaire toll passé nañu fu ñuy wax le moral est bon ou il est pas bon quand on quand on est là pour défendre notre titre bu mu fi nekkee pour défendre benn titre amatul question morale question lan la. fulla fayda et je crois que nous aujourd'hui démb tout récemment li ma gis suñu joueurs yi wan ñu ko macha allah e je crois que ni on a des joueurs responsables on a des joueurs prêts. dès le début depuis ñu gagné coupe d'Afrique bi ba léegi seen propre objectif moo di teewaat ko et je crois que ni on a boo amee joueurs yu mel na tey jii de ces trempes de Sadio Mendy euh, Koulibaly euh, Idriss euh, Cheikhou ak les la jeunesse qui arrive je crois que ni amolo looy ragal. respecter sa adversaire bu fekkee football rek si biir terrain bi la et je crois que qualité parlera d'elle-même. est nga yaakaar Bamba Dieng mu nekk joker bu Sénégalais yi ñëpp di xaar. non du Bamba Dieng du woowuñu ko pour mu nekk joker Bamba Dieng dañ ko woo pour mu ñëw def liggéeyam comme ni ñu woowee ñëpp ñu def seen liggéey euh, mën naa wax ne chance bu rëy la am tey jii comme on le dit tubaab moo ko wax tubaab di wax en général yëpp dëgg la le malheur des uns fait le bonheur des autres. aujourd'hui Bamba dañ ko woo ñëwul pour remplacer kenn dafa ñëw pour. indi pierre am à l'édifice pour wane ni sénégalais la dafa war a ñëw jàppale sénégalais yi doon ko woo la euh, militaire la euh, pour mu ñëw def liggéeyam. mais El Hadj que sénégalais yi jàppe ni Bamba wala. Euh, comment il s'appelle encore keneen ku nu mën woowaat aussi lenn lan la woo pour nga ñëw def sa liggéey tey jii équipe bi kenn moomu ko c'est des soldats. qu'on mi en réserve booy dem da ngay yóbbu ay soldats ñaata soldats nga soxla am na ñoo xam ne en réserve la nekk aussi et je crois que Bamba dañ ko woo pour mu ñëw euh, def liggéeyam et que c'est un joueur qui mérite d'être là parce que Aliou Cissé mënoon na woo keneen aussi amoon na yeneen joueurs yu nga xam ni ñoo ngi en réserve mais Aliou bu ko woowee ça veut dire que il a compté sur Bamba et il comptait aussi sur Bamba parce que si pré pré pré préliste bi la bokkoon. mais Elage au front de l'attaque, il y a Abib Diallo, il y a Nicolas Jackson, il y a également Abdullah Sima qui est trop Le Sénégal n'a jamais compté pour sur un attaquant sur l'air à Youssef pour gagner un match. Je crois qu'on a des leaders, que ce soit leader technique, moral et physique. Et leader yooyu am nañ leen mais Sénégal mosul conte si attaquant bu bu bu bu nga xam ne trempe Didier Drogba la wala trempe Inzaghi la wala trempe kenn Sénégal si lu mu compté mooy si équipe am. équipe bi moo di lan mooy pan bi moo di ñiy démarrer ak ñiy dugg ñëpp ku nekk na prêt pour dugg bu duggee tey jii def euh, lu mu war a def la preuve ki ñu qualifié euh, pour ñu dem huitième de finale coupe du monde kan la Koulibaly sur euh, moo dugaloon donc pour bu njëkk Sénégal équipe la équipe boobu ñun la ñuy sàmm képp ku mun ñëw rek da ngay dans la masse et que wane ne si équipe bi nga bokk et que Sénégal tout le monde peut marquer et que on a des joueurs extraordinaires. la koy l'accueil réservé aux Lions par les Ivoiriens l'accueil réservé aux par les Ivoiriens magnifique franchement d'autant plus que Yamoussoukro la nekk et il faut que sénégalais yi xam ne Yamoussoukro nag mënoon wax nag sax si ville Sénégal yi la bokk parce que euh, le président son excellence le feu Houphouët-Boigny euh, jabaram sénégalaise la woon et loolu lépp lu ci am solo la c'est pas par hasard ñu ñëw fii Yamoussoukro aussi parce que am nañ fi mbokk euh, mu doon jabaru feu Houphouët-Boigny son excellence donc pour wax rek ni. Ivoire yi Côte d'Ivoire ak Sénégal moom macha allah ndax booy xool sax si ay poste gis nañu mm, euh, son excellence monsieur Alassane Ouattara que je salue et je salue son travail qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique comme le président Macky Sall donc mën naa wax ñaar ñooñu ay xarit lañu et que moom nee na bu Sénégal bu bu Côte d'Ivoire gañewul euh, euh, bu Côte d'Ivoire gañewul Sénégal gagné Sénégal gagné et je crois que ne ñaari dëkk yi kenn mënu di xaajal ay dëkk yoo xam ne ils sont aussi proches mën naa wax ne Ivoiriens yëpp tey jii ñoo ngi si gannaaw Sénégalais yi à part leur équipe. back to back Diouf El Hadj Diouf Sénégal war a joué ak ban impact la war a am. comment Sénégal Sénégal ak Gambie war a joué à 14 impact bi. Euh, Sénégal ak Gambie ban ban ban impact la war a am seen match amul benn impact. climat bi ñun ñoo ñun ñoo ñun at Gambie 14 euh, euh, heures la day métti si ñoom métti si ñun climat bi après nag talent bi moo war a wax at qualité bi mais li may wax rek moo di match boobu aussi li may wax appel si ñaari dëkk yëpp muy Gambie ak Sénégal ñoo bokk ndey ñun nag ñoo bokk bàyyi football la 90 minutes la ne ku nekk supporter sa équipe match bu jeexee jeex na. back to back. back to back.

xale yi ñoo fi nekk wax ko sol waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw parce que ñoom comme ñoom Jalle par exemple mooy gérer mooy gérer réseaux sociaux yi donc dina bëgg jël affaire yi xam ne parce que bu amul waa numéro naxanteeg ñoom rek. xale may naa la bës man damay ragal waa CNN pare woo